Uh-huh. lan bikum jàngoroy coronavirus gi mi ngi deltu ginnaaw Sénégal tubaab bi ko njëkk a xam faj nañ ko ba wér na ñibbi na këram alhamdulilahi Waly Diouf directeur cabinet jëwriñ ju nekk wàllu wér gi yaram moo ko wax ni ki démb si du quotidien yeggee ñu ko nee na démb daal ci ajjuma ji ci la ñu jot résultat yu bàyyi ko ca institut Pasteur yu leen di xamal ne tubaab bi njëkk a xam jàngoro ju bon jooju fii Sénégal defaatal nañ ko ñaari test mu négatif maanaam jàngoro ji jeex na altine ñaari fan ci weeru mars ci la feeñaloon jàngoro ji moom tubaab bi kon fi mu toll nii Sénégal ñetti tubaab ñoo fi am coronavirus te ña ngi leen di faj te am nañ yaakaar ci seen ak tane turbine yéen a kaay na xam nga li ñuy wax miracle lu ñu bëri foogu toon moo dal tubaab bi njëkk a am coronavirus Sénégal mooy na faj nañ ko wér na libération na gàcce ngaalaama doktooru Sénégal yi kenn du ñoom gañe nañu xeex bu njëkk bi faj nañ tubaab ba wér na ba génn na sax démb ñibbi këram wér na complètement nag Le Soleil yéen a kaay ne laata muy ñibbi këram waxtaan nañ ak moom tubaab bi ah. yow seet dal nee na kontaan naa maa ngi gërëm kilifa kilifay réewum Sénégal rawatina docteur yi xarañ nañ jàmbar lañ waaye li may dénk sénégalais yi moo ñu gën a farlu fagaru moo gën faju dimbalante ci seen biir ndax feebar bi la dal fay rayaate kuñ ko wax ngay jàq waaye sant yàlla nag ba tane naa la quotidien yéen a kaay na ko yow koy fi mu toll ni ab héros nga critique yéen a kaay na xeex jàngoroy coronavirus gi kilifa yi yor wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal ñoom testé nañ mu positif malaan malade bi ñu leen njëkk jox faj nañ ko mu wér kon ñoom gàcce ngaalaama nañ continuer nag ba ñëpp wér ci yéen a kaay bi ne kilifay Sénégal jumtuwaay yi ñu teg ngir xool jàngoro ji ak faj ko moo efficace maanaam gaa ñu fa ñoo garaaw taqe aay gàcce ngaalaama ñoom rawatina Diouf Sarr jëwriñ ji dénk wàllu wér gi yaram ni mu yoree jàngoro ji di ko ko xeexee lépp a normal 24 heures yéen a kaay ne Aïda Mbodj mi ko fi doon attaque bërki Dembo Njaay di ñaawlu ni mu yoree jàngoro ji ni mu koy fajee ak ni mu koy toppatoo ak yi ni xanaa fi mu toon de Aïda Mbodj dana noppi turbine yéen a kaay ne hee def leen ndànk gaaw na teel na tàccoog kii a xamu leen ne am na ñetti chinois yoo xam ne ña ngi leen ber ca diwaanu Foundiougne ah. yow seet tal fa ñoo demoon seen réew Chine fan yi la ñib si Sénégal ba ñu yegsee kilifay diwaan ba na leen xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa du ngeen fi génn kaay la ñu tëj leen fukki fana ak ñeent xool ba xam andiwaale wu leen jàngoro ji ka jiite wàllum paj ma nag ca diwaan ba ma ngay dalal xel yi ne chinois yi nekkuñu woon Wuhan maanaam fa jàngoro ja am déedéet beneen diwaan lañ nekkoon ca seen réew waaye terewut fagaru moo gën faju moo tax ñu ne leen kaay leen toog fii ba ca kanam su ngeen amul jàngoro ji ñu bàyyi leen ngeen doxi seen soxla fii Sénégal may lu leer ba yegg ca naan mooy ne responsable APR yi ñoom faale seen yoon nekkut ci feebaru coronavirus bi jaaxal sénégal yi déedéet xam nga ñoom ci luñ nekkam naka la ñuy def ba remplacer Macky Sall ak kii maay jiitu kii du ma jiitu wàllu positionnement daal ci lañ ne ci gàttal source ay yéen kaay ñu ko xamal a yaaw gàttal Baara Ndiaye ak Mimi Touré ña nga ne la di ñàkkante Baara fa tuumal Mimi ne fa recruter jël ay nit ñu bari ca conseil économique social bañ ko dénk ci anam gu jaarul yoon am ñoo xam ne ma ngi leen di fay yoo xam ne fa jéggi dayo Mimi Touré ko plainte mu la ma waxoon tey laa a wax te man sax maa gisul plainte bu ñëwee danaa dem wuy ji wax lu gën a garaaw ndax li ngay def jaaduwut yéen a kaay bi ne foog nga ne lii ci jamono joo xam ne sénégalais ngi jaaxle ci corona bi ba ci opposition bi ku jégi sax ñu a sax wax na waa PDS responsable yi bu kenn tukkati génn réew mi seen activité politique yi arrêté leen ko ba ñaar fukki fan ci weeru mars loolu moo rafet laneen lu rafet ci àdduna bi mooy bés bi ñu jagleel soxna yi suba ci dimanche di 8 mars lañ koy màggal les éco yéen a kaay ne donte Sénégal ay xumbute moom dajaloo makki haayee na ko waaye terewut man danaa leen tànnal ñetti soxna yoo xam ne ay jigéen yu mën góor lañ a yaaw seetal Maimouna Ndour ba jiite 7TV Seynabou Sène ak Fama Ndiaye moom xam mécanicien la seen taxawaay rafet na Sara Iyane Thiam ak asom jaata nag ñoom ña ngay wax soxna yi yoon wu ñu war a aw ba mën a dem ak seen bopp bañ a wéeru ci kenn ngir suqaliku kele yaa ngi ca biir laas yi ne kaay tàggat yaram jongante qualification yi ñu war a amal ci réewu Afrique yi boo moytuwul kaaf dana ko annuler wala mu randal ko wala ñu football ko ci stade yoo xam ne du am supporter kenn du fa dem lépp ndax moytu coronavirus gi ayaw seetal juróom-ñeenti réewu Afrique am nañ jàngoro ji Sénégal benn Maroc Égypte Algérie Cameroun Afrique du Sud Nigeria Tunisie Togo jàngoro war a jàng fa stade yéen a kaay yokk ci na tey ci samedi ji xel yépp a nga Liverpool ginnaaw buñ leen mbuqee ñetti yoon tey nag suñ mbuqiwut mooy na dugg nañ ci crise nag am problème yu métti ndax ñi ngi war a dalal Atlético Ligue des champions naka noonu match bu mag xam na Angleterre diggante Man U Man City sunu lamb yéen a kaay jox kàddu Gilles Balde ma nga mer ba futtu waaj a toj nee na dégool fa koo tuumal lu nekkul dëgg nee na nes fa koo wor yokk ci ne Eumeu Sène boolewut ko ci ay mbiram bi muy bëree ak Modou Lo mu jeexale ay kàddoom ne li ma bëgg Sénégalais yëpp xam man Gilles Balde Sénégal de du ma xab sàcc Sénégal nag am na ay soxna yu jekk ci sàcc te duñ mas a sàcc enquête yéen a kaay moo ñu xamal ne am na borom kër yoo xam ne fañoo seetaan seen jabar yi xamaluñ leen benn njëriñ jigéen ñaay dang-dangi ñoo yor kër ya dépense facture mboolem lu njaboot ga soxla ñoom jigéen ñi ñooy liggéey di kërti kërti daan seen doole di defal seen njaboot yéen a kaay bi ne am na soxna yuy sëy sonn nañ bay bëgg a dee ñii seen jëkkër yi fañ leen abandonné ña ca des seen jëkkër yi ñoom xamuñ njëriñ fa ñoo bàyyi ni ku yambar jéemuñ dara waa ma ne bu ñu waxante xam na yenn góor yi daganut sax ñu may leen jabar jël xet rek fekk leen fan tëdd mbuqi leen ban tëdd rek dagan ci ñoom xana góor gu na yàbb yàbbaaral sa jabar di la yor wala nga am war a defal sa jabar bañ na doo ko defal cim ñàkk jom